léegi bii mom la ñuy wax contrat individuel contrat de concession la bolé c'est la première fois ñu ñëw fii mooy nangu di def lii yépp ci defar ak gëna wax ba nga xam ni soo liggéey dañu wax ni lii lañ fii waxoon ci wàllu alal bi ñoom jaroon ñu tudd parce que ñu mu seetaan ku nekk xam nga sa sa bopp li nga waxante ak moom ak yéen ñëw accord ak seen patron te xaatim contrat bi nga xam ne moom moo jaar ci manager promoteur ak sélection donc ay manager yu mag lañ donc yéen ñu bëri yéen la ñuy waxal yéen tamit da ngeen fexe daal ba lépp loo xam ne làmb laaj na ngeen def lépp lu làmb di tere ngeen bàyyi donc loolu mooy li nga xam ne man moom laa indi ñaaxee lépp lu làmb nangu seen i manager xam nañ ko gën leen cee nekk. lépp loo xam ne làmb da koy tere mu sport xam ne maanaam ñu bëgguñu ko ko def tamit suñ ñëwee fii tamit dañ suñ ko bindee am na loo mën a xew ci seen diggante ak ñoom ñëpp kon nag ay combat bu mag la combat la boo xam ne vraiment ñu bari bëgg nañ ko yàlla dogal nañu tey jii ñun promoteur Sidi euh, gën cee kontaan gën cee gën ko rafetlu suñu wóorloo bi xëy na dañ bëgg koo bàyyi ba mais du ko mën yàlla xam nga si yàlla moom la ko jaarale au nom du président Sidi ñu ngi lay félicité encore dina wax ni damaa xam tur yu baax yi moo tax ndax jibee donc leen di ñaax di leen wax ni du ay tuum xam nga lan la joxante cër dem entraîné ku mën sa morom daal après soo ko paree da ngeen ay mbokk àndal war a mën a liggéey parce que fi bu nekk ci jour bi ngeen di defee signature de contrat bi jour la boo xam ne jour bu doy waar la ci taarixu Sénégal. donc boo kenn si mën a jàngal lu bare bare kon nag moom yi nekk benn sport la rek su jeexee jeex benn maire bi donc Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax di wax ne vraiment maanaam seen bi bu parce que ba ñu ba tey. toujours ñun le fekk seen jeu ngay jàppale waa seen jeu seen liggéey soo ñëwee fii vraiment dañuy xam ne li ngay def xam nga ko mën ko heureusement bu ñu fekkee tamit ñi nga xam ne moom la ñuy jéem a doxal fa yow ci liggéey seen jeu ñu tamit ñu koy def vraiment ñu leen di gërëm bu baax di leen sant te di leen wax ni daal wax yi dérapé daal moom jaru ko fi wax mais nag mën ngeen a jaay seen combat comme ni ko Sidi bëgg mais dérapage baaxul te man nag maa ngi fii sama nopp dégg tey la signature def nag après je suis le superviseur du su paree nii damay toog fee di dégg bu ma xaar sax visionnage ku fi wax benn wax dinaa ko jël si benn papier dugal ko parce que am ngeen service ba pare donc dama ko ci jël rek traité ko ci biir de xaar loolu nag kon muy loolu salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy siifur ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax ñu ngi ci CNG de lutte bu Thiès kan moo ñu fi woo Sidi Diakhaté Sidi Diakhaté production mu jëm ci bis bu am solo dimanche le 26 mai taxawal combat bu am solo di ñaari champion di ñaari ndaanaan yaakaar naa ki taxaw sama côté ndeyjoor mooy Pape Mbaye bu Ersan wala Pape Mbaye bu Thiès bu la neexee kan lañ ko jox Youssou Ndour bu Lebu borom Tëngéej di champion di ndaanaan yaakaar naa ñoom ñaar kenn du leen présenté ci làmb ndax buñ ne Youssou Ndour bu Lebu gi ñu bëre naa ak Anta bëree naag soq bëree caatu daawuda faal bëree ki nga xam ni mooy wës jàmbaar ah bëree ki nga xam ne mooy taqe dóor booy jaxaaw mu daanu kooku yaakaar naa ku ko jël am nga bis waaye kan lañ ko booleel Pape mbay bu R100 moo daan booy jaxaaw moo daan Ablaye Diop moo daan ki nga xam ne mooy jam ceeri numéro 2 bëreeg ki nga xam ne mooy laay goode bëreeg ki nga xam ne mooy Pape ndoy bëreeg doomu de booy déen si jaxate taxawal bis bu am solo boobu moy le 26 mai fele nga xamni moy hippodrome ndiawma koddu mais bala ñoo sot rek dañuy bayyi ki nga xamni moy Pambay mu dalal adversaire am comme ko moko fekk ci dëkkam han ah, Pambay bu Ersan wala borom Thiès dégg wa Kara ñoo lay fay bu baax ginnaw bu ñu sante yàlla bu baax di julli ci yeneen bi e ñoo ngi gëreum suñu ñaari waju bu baax baax di ñaanal suñu papa fay mu teul sa ma suñu borom xaaree ko àjjana te yërëm ko ak mboolem lu way la ko di la nuyu wa CNG bu nekk di nuyu wa kees gep di nuyu sunu manager Pa Amen Ndiaye di balu bepp senegal ak kep ku ñuy suivre ak di len balu ak bu baax di len bal ak di ñaanal sunu borom def ci rew mi jamm bu baax baax baax di nuyu cameraman yu fa tok yep kara di len nuyu ah, ak sunu kara Modou Fall <laughs> ak pambe bu ma limee damay jum, di nuyu sama staff ñep di nuyu wa R100 bu baax baax wa kees wa Casamance waa Gambie di leen nuyu bu baax a baax a baax. <laughs> Youssou Ndour borom fi fukki ak ñaar bëgg naa la. waaw Kara ginnaaw ban sant yàlla julli si yàlla bi sant suñu waajur di sant waa Tëngéej ji yëpp rawatina monsieur le Mar di sant Percy di Jaxate mi nga xam ne moo taxawal combat bi. Mhm. di sant Pam Menga. xam nga. ak mhm. Pambay. Mhm. ñoom solo nañ si. Père Pambay combat bi lu waaw Père mhm. daa ba ren ñu ngi dugg si dox mais tey la ko yàlla dogal. suñu père si di décroché ka. di nuyu suma adversaire bu baax. xam nga di woote mu waa Tëngéej gépp di leen wax ne combat bi taxaw na. waaw. ngeen jëm ci bis bu am solo. le 26 fii nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw Macodou le 26 mais muy bis bu am solo Youssou Ndour ku ko xam-xam ni bëri na Thiès waaye dafa xaw a gëj Thiès waa Thiès amateur yi làmb yi namm ko. boobu ba léegi ñu koy réclamer sa combat mujj boole ceeb nga bëreeg booy jaxaw mel ni mën nañu revanche ngay jël si wala wala wala wala wala confirmation. non làmbala rek xam nga làmbala rek ñun doon nañu wax yeneen di combat mhm. mais xëy na suñu combat moom loolu la yàlla dogal ne mooy taxaw. Mhm. moo taxaw Thiès ak yëpp benn la. incha allah rabbi le 26 dama koy fekk Thiès daan ko. Pape bii nii. moom mii Pape Mbaye bii. bu am nga combat de. Pape Baye nee na am nga combat de. waaw Kara di nuyu tamit suñu père bu baax a baax tey ñun amaana suñu combat yu bari moo ko tëgg ba sunu borom dogal ñuy dem Dakar di fa bëri ay grand combat loolu moom dañ koy sante bu baax ba pare di ko ñaanal jàmm ak wér bu baax a baax a baax man teguma woon sama bët si Youssou Ndour. Youssou Ndour mi bëre moo daan Anta nga tegu sa bët ci moom. teguma woon sama bët si moom amoon na yeneen combat. mbër dafal ndànk rek mbër dafal ndànk rek pambay nga am de ah jege su ni yéen njëru sax may sori seen diggante non non pambay la am ah non non sama kër maam lay ñëwle Kara sama kër maam wax ko ko mu dégg ko xam lay ñëwle man maa mënee Dakar mën kees man mbëru Dakar yi duñ ma yab ba ci Youssou nduur mi non daa am lu ma war a indi kees moom laa waxoon ab laa Youssou Ndour mi dóor ba jaxaamu daan moom laa waxoon Tribo waaw est xam nga Youssou Ndour mi Kara man jëm teel laa woon bëreel ah wala ma bëreeg laay Pythagore ñooñ laa woon a bëreel mais du moom. kuy wax jëm teel kay ñu jox la Youssou Ndour. dan maa dan maa dan dan maa aara dan. ay wax la ni rek mo tax ma jël ko na am respect rek ñew suñu kër na am ñu bari war rek ah? yow ñaaraat ya nga top ki kii xamul la mel nak yow ñaaraat groupe la may fu mu yow bu ma duggé nga xulo man eh xulo ma yow dal ay tay ni dama ni la xulo ma yow yow si ah, barki ma maa tegi war a neex am nga eh, combat dama eh, eh. lay wax lu leer wër na Serigne Touba dama lay wax lu leer yow loolu ma la xalé do doyoo ma sa galandiku say morom waxon nañ ka dama ni la do doyoo ma ko maa yow do ay wax say morom waxon nañ ka say morom waxon nañ ka no bëgg ma daaneel la noo bëgg nga daaneel la bu dee bëre maa la ko dàq fuuf. foo jaar waaw baax na. yow lu ma wane si capacité bëre da nga maa la ko li nga bëre Youssou Ndour bu Balla Gaye mën nañ ko wax diggante ah waxal leneen man dama Ablaye Diop loxo dama ne la sa Ablaye Diop waxal leneen man góor du ma joxoon Ablaye Diop <laughs> déggal bu baax li ma wax eh nee na ci lébu la lay delluwaat Youssou Ndour de eh. lébu laa de boo yoroo nga dal jàmm dangay neexal laamu ji neexal xam nga mun fuuf du ma morom. yow yaa ma mën yow wallaahi. yow yaa ma mën sax barki Seydina Mouhamed bu bés baa di nga sa jëfi tapet yooyu fexeel ba bu ko fi def di yooroox yi. ah da nga da nga da nga. duma yow mën nga maa duma yow. wallaahi dama lay duma nga duma. dama lay duma. aja <laughs> ñu bàyyi ngeen jël kii bi te ñëw. journée Sidi Diakhaté le 26 mai dimanche le 26 mai fële nga xamni moy hippodrome jawma ma koddu mu doon bis bu am solo ak yenen combat yu am solo yo xamni ñi ngi ci biir bis bi di wax amateur lamb yi da ngeen ñu xaar le 26 mai hippodrome jawma Koddu ñu bay ñaari mbeuri ñu wote le 26 wo seeni supporter wo ñu leen di jàppale aja pap wotel wa Kara man di wo wa Thiès ñep tay suma juggé ties Thiès ñëpp ay jóg di nuyu wa mbur tamit wa top wa yenn xam ma ñëpp ay jóg waa Gambie waa Casamance di nuyu bax di féliciter le maire le meilleur maire Ousmane Diagne. di ko féliciter bu baax a baax a baax tey ak di féliciter jamaay muy dugg si palais bi tey hmm? maire moo ngi si palais wa tey ngeen war a jàkkaarloo yéen waaw tey tey xam nga tey ñu war a jàkkaarloo day gën a neex yu jor sama la moom yaa ngi koy baab de moom non garaa te xam na ni moom day daanu si moom moo la gën a xam day daanu si de dañuy neexal affaire yi nii rek mais moom xam nañ day daanu si di nuyu maire bu baax a baax baax di ko féliciter di ko wax am na nañ combat tey li mu si doon jàppee tamit maire moom ku nekk xam na maam moom tey su ma amee combat xam nga day jënd béy moo Habib Kane xam nga ak Aram Diouf xam nga tamit maye kaar yi xam nga tey moom fii moom suñu kër maam la. Hmm? sunu kër maam la ñëw ba suñu kër maam la. waaw di gës di leen sant bu baax di di di di nuyu waa Kees yëpp. combat baa ngi soog a taxaw di leen wax ñëpp am na combat incha allah rabi. le 26 mai maa maa Youssou Ndour incha allah. dimanche le 26 mai. dimanche le 26 mai. di si woo tamit waa garage su kees yëpp. Mhm. waaw di si woo képp kuy supporteru Pambay rek ñoo la si woo bu baax a baax a baax. di wax gars yi namoon nañ ma parce que man kees dañuy namu samay journée. waaw gars yi dina mën nañ sa combat. waaw su course ba lu ñu bëree yëpp Dakar lañ ko bëree. mais waaye kii gars yi kees yi namoon nañ ko de. Youssou Ndour Youssou Ndour waaw de daanu si man kale bu ma koy daanee rek laa bëgg mu wax ma ko parce que man ni niveau boobu laa toll mbër mu may bëree dama lay dama dama naan la nan laa lay daanee nga wax ma ko Abdoulaye Diop bu ma doon bëree moom dana ma mu ñuus ko daan ko. loolu la bëgg kii xanaa dara jaawale ak Abdoulaye Diop. moom xam nga moom daa baax di wax rek. comme li Persi di wax rek maanaam xam na ne tey kër ga dina neex. ah moo tax. waaw man kër ga daan neex yaa ngi neex si man de. kii kii man ngay ñëw ma duma la ah, daan la de. ne leen ko moom am nga combat tey moom ndogule dina sànq. kii maam am nga combat mbër. uma combat yow topp nga ma fu ne di ma tënk. yow fa laa la topp waaw yow wax la wax jooju fa laa ah, sa xarit ñëwul ba sama kër pour dox suñu combat maa yow. xaritam sa xarit. Wurna, na yow xaw ma sol yow loolu wóor na saaliw xaw ma xaw ma lan sob xaw ma loolu nga jàpp saaliw yabaloo ko pour mu bëgg sunu yow loolu nga jàppoon la waxal loolu nga jàppoon loolu ban la yow loolu nga jàppoon ban weer la man nga jàppoon ah ban weer la loolu nga jàppoon ban weer la ah loolu nga jàppoon wootel le 26 mai ah da nga doon miné <laughs> wootel dimanche le 26 mai waaw mais li wax mooy di wax waa tëngeej di wax ne am nañ combat ñoo pambay di si woo tëngeej yëpp di si woo maire yi fa nekk yëpp <coughs> di woo sponsor bi soxosim <laughs> ndax ñun kii daa tooy de entraînement yu métti doomu tëngeej leen quoi kon ñun bu ñu jogee bu ñu jogee tey xam nga war a bëri sa kees persi di tëkkañu soo ko si nekk sponsor leader bi yaakaar naa ne directeur bi war nañu jàppale ma pamba yëpp jàppale persi di si làmba ji di nuyu samay supporter di nuyu waa Gàmbi di nuyu waa fu Fuñun xam nga waa Fayaako waa Mbam hmm? xam nga ñëpp ñu ñuy ñaanal di leen wax ne combat bi taxaw na rawatina waa joxul kaw di leen wax ne am naa combat ma pambay le 26 incha allah rabbi te ñaan yàlla yàlla may ma sa kaw. ñu bàyyi ngeen jël di nuyu tey nag ñoo ngi fii ci CRG de lutte bu cees ah xam ngeen nag bu ngeen gisee jataay bi rek defe naa ni ci lu jëm ci làmb rek jaratul kenn di laaj lan moo xew ah ginnaaw nag bu nu sante yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare. dañuy balu àq képp koo nga xamante ni rek ku nekk ci biir dëkk bi nga ci rawatina ci weeru koor bi nga xamante ni ci la ñu nekk muy weer woo nga xamante ni weeru yërmande la rawatina di weer woo xam ne weeru njëggal la di weer woo xamante ni weeru jokkalaakoon la kon nag tey bu bis bu mel ni amee ah ku ne xam ne ni ah, Sidi Diakhaté production moo wooteeti kañ la di Diakhaté production woote mooy dimanche lay tombeel le 26 mai fan lay amee fee ci hippodrome Alaaji Njaw Makoddu Jóob bu Thiès bu ñu ku ne xam na ni nag euh, tey presse Thiès bépp mu ngi taxaw samay doom a ngi fi ku ci mel ni moo di Kara Dieng waaye nag kilifa jotaay bi mi ngi fi di sunu papa Ahmed Ndiaye ñëw tudd institut Sidi Diakhaté te tudduñu ko ndax mooy sunu kilifa. mais nag ku ne xam ne ni nag son excellence aussi mi ngi fi muy kan di Omar Diakhaté di kenn ci Sidi Diakhaté di rakkam ah bii pas combat bi fekk ko Torino mi ngi ko fekk fii ci senegal moo tax mi ngi taxaw nii jàkkaarloo ak ñun Pam Mbengue duñu ko bañ a tudd Lagrose ak képp koo nga xamante ni rek. kuy téye micro nga wala kuy yor caméra te nekk fi nga xamante ni ci diwaanu cees la te nag si dafa woote waat muy bis boo nga xamante ni nee na ndéwénal lay joxe xëy na ndéwénal gi nag dina xaw a sore tuuti ak bisu julli gi waaye ndéwénalu Thiès waaye yëpp lay doon gan ndéwénal lay doon mooy dafa boole ñaari mbër di ñaari champion di ñaari mbër yoo xamee bu ngeen xoolee taxawaay bi war ngeen a xam li leen boole lan moo leen boole xam nga doomu Thiès ji di Boy Jaxaaw ñoom ñaar ñi bokk nañ ko muy adversaire boo xam dañ koo séddoo kii bëreeg mom fi ci hippodrome ko du job muy Pambay dan ko ki nga xamanteni moy euh yousou Ndour jël ko Ndakaaru dan ko kon ñom ñaar combat bi liku gëna tax mu logique moy ben adversaire bi nga xam dañ ko bok ñom ñaar kenn ku ne bëreeg mom mais nak buñ duggé ci sen palmarès ku ne xam ni euh, Modou Kara sama dom jaar na ci te def na ni mom moy sama tofo di sama rak di sama dom di sama lepp te def na lepp lu mu wax rek ah da fay melni lu ñepp xam lay doon mais yousou Ndour ku ne xam ni beure nak ay champion yo xam ni kenn dot leen laajte ci Sénégal ndax boo nee bëri nga ak Modou Anta Gueye bëri nga ak Taqe bëri nga ak ki nga xamante ni mooy euh, Weus Jàmbaar defe naa ni ñooñu rek boo leen tuddee ci làmbi Sénégal doy na ak mbër waaye Pape Mbaye defe naa ni kenn du ko laaj ki dem Dembo Ndiaye la mujj ci journée lampe production digganteem ak Ablaye Diop bu Yoof waaye ku ne xam ne ni le 19 mars tamit fa la daje woon ak Turbo Play fii la daje ak Boy Jaxaaw fii la jële woon Boy mi nga xamante ni moo nekk fee ci écurie Ndakaaru kon defe naa ñoom ñaar kenn ku ci ne bu doon carte bu doon carte nga ko bu don carte d'identité lamb tafi tam nga ko kon Sidi jaxati taxawal nga lo xamni ni waa lañ do xaar ci yow bis bu nek lool la wote moy combat yu magi bis yu magi ci yow lañ ko don xaar kon defa dan Sidi Diakhaté kon nak duma tardé dama don nuyo rek damay jël euh, euh, micro bi jox ko pap Mbaye mu ak askanu Thiès ab dëkkam ba xam nan lay waji bis bi nga xamanteni mo wara nek dimanche le 26 mai pap ñu ngi lay wa waaw fay bu baax baax di nuyu wa Thiès gep di ñaanal sëpp ku si koor gi sunu borom defal ñu jàmm ak tawféex def ko si réew mi tamit ñooy nuyu waa kees gi di nuyu waa Gàmbi di nuyu waa Mbuur di nuyu waa Casamance bu baax a baax di nuyu waa kees waa yëpp di nuyu suñu bépp supporter di nuyu tamit waa yeen xam nga di nuyu tamit sunu maire maire Ousmane Diagne di ko nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm di ko wax ñoo ngi koy félicité si ndam li ak la président Diomaye di am contentement bu baax a baax baax di nuyu tamit. Euh, xama nga ñet képp kuy jàppale Pambay ñoo leen nuy baax baax baax euh, carte de champion bi la muy pap mbay bu Thiès wala pap mbay bu R100 wala borom dëkk bi tur wuñ ko ci wooye baax yusuf wa ñu lay bay nga nuyo rek baab ñu lay fay mm-hmm. gina ban sant yàlla julli si yàlla bi sant sunu waajur bu jigen ñaaral tam suma papa fofu la waroon a njëkk mm-hmm. yàlla xaare ka àjjana di ñaanal papa yalla yalla xara ga aljana ñaanal tam papa yalla mu ndaw yalla xara ga aljana xam nga di nuyu wa tëngee gep monsieur le maire Aline Mar amnu fayam xam nga ah maire yi nga nekk xam ne ñoo nekk tëngee yëpp di nuyu itam suñu coach yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale. ku mel ni performant xam nga ku mel ni itam euh, coach Bolo xam nga ak suñu entraîneur Babou Kale. du nuyu waa tëngee gépp du nuyu ku mel ni ñaambay xam nga di nuyu itam Balaye Fall. di nga wax ne sa sa sa rakk waaw sa rakk sa sa xarit am na combat kees moo wax ne Balaye tey moo ñu war a dalal kees kon Balaye ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax. xam nga du nuyu itam suma nijaay Sa Thiès mm-hmm. xam ne fii la dëkk fii jaxaaw fii waaw di nuyu waa waaw biir jaxaaw ki dama kaa xam bu baax da toog di wax rek li ma lay njëkk laaj mooy jàngoro yëpp dañ fee ne nga dem taamu siti dégguma jàngoro yëpp dañ fee ne mm-hmm. nga bàyyi leen fi dem taamu siti luy loolu siti mooy ndoxum siti jàngoro ji gën a bon gën a métti nga dem taamu ndoxum siti dama koy faj ay reen laa koy sol ba mu wér. <laughs> waaw. gis nga daa mel ni yaay siti te nee na moom da lay faj. Pambay Pambay xam naa la de xam naa la bu baax. Pambay ban ci ñëw bu baax champion. bu grand la may wax. grand. avant laa mujj rek grand la may wax. xam nga tey moom yow si man yow sa bëree xoolal sa bëree yéemu ma. yaa ma daa ko bëree. yow li ma def si làmb da ngaa def. dëkk bi laa la waay Sénégal yow yaa ma yow yaa ma yooyu waay. Sénégal ku fi tax la ku fi tax ngeem maa la daa ko bëree. waaw loolu fan nga ko teg loolu yomb. damaa mën a yow yow ñu teg onze millions. cinq millions doo waaju bëri seen si mbapat def nañ ko si mbapat ba pare lu ñuy def si mbapat def nañ ko si mbapat ba pare ma ne la wax ma ban jël laa la bëgg ma daanee la ma wax ma ma ndax du ma la ko daane yow da nga maa mën a daan waaw wax ma ban jël laa la bëgg a daane dama ne nga wax ban jël doom ngay naal nga traité man xale nga déet bàññil doom sa kanam gi daa nga na wàññil wàññil yow sa kanam gaa yu mel ni plat di jëm nga di sama kanam yi daa gën liggéey waaw baax na xam nga am Ablaye Diop waxoon na fi Ablaye Diop man dama Ablaye Diop wallaahi man dama Ablaye Diop yow xam nga Ablaye Diop ay Youssou Ndour bopp nga déglu ma Ablaye Diop man dama Ablaye Diop de xoolal ñoo bëre nga ne ma waxee Ablaye Diop man dama Ablaye Diop de ma la sawaay de amul nii nii de ma la sawaay am nga combat de mën na mën nañoo xaar c'est ni nga bëree ak Boy Jaxaw kii lu ko raw laa indi sama diggante moom lu ko raw boo ko indi boo ko indee ci moom lu ko raw parce que ki limu yaakar ak limu mu amul. pap ki bu la indilee limu andil boy jaxaw ki ñuma ñu ñep bëreel ñëpp ñoo gën a bo xolé xoolee boo sama carrière. Hmm. ñuma ci si jot sama trois combats yi ma tegale rek dans wala quatre combats yi ni ñuma ma ñep ñëpp gëna gën pap ki xam nga ñu bëree ci lamb way ki dama ko xép wax naa la ki man bëgguma woon a bëree moom mais xam rek sir moy ñew xam ak tabak ci beeg ay ay détails yo xamni yo wara régler. wa xam nga. combat fañ mooy loolu noonu xam la rek te mom tamit. xam nga champion la nag. champion la kii kii kii xam na kii champion la mais damay dama ne ko. wallaay su ma waxee nu mu bëggee ma daane ko dama eh, koy daanee kii sunu combat. mooy dax si àddina maa moom. Ah. man mën nañ cee xalaat non. mais kon wala yow laaloo du yàgg. waaw yow déggoo lu ma la waxee maa yow du yàgg. kii kii xaaral daa feebar yow. waay yow yow waay yow. yow yow yow yow yow yow yow yow billaay wallaay taalee man waa kees dan maa yaakaar bokkuma yow man man mbër ma taare nga man kees dan maa yaakaar xippi seen bët xool dama leen a war a indil chaque jour résultat ban mbër fii eh dama bëgg nga wax ma nu may daanee ma la noonu dama ne dama bëgg nga daanee la noonu man fa laa tolloog mbër yi foofu laa tolloog mbër yi danga ma daanee ma daanee amoo bëre ma daan amoo doole ju ma daan maa la ëpp lépp yow yaa ma ëpp maa la ëpp supporter jëlal maa la maa la ëpp laaw boobaa li ma am dinaa ko indi maa la ëpp qualité laaw ne pertir du dama maa la ëpp supporter maa la ëpp qualité laaw maa la maa la ëpp doole jërëjëf maa la ëpp doole maa loolu am na solo waaye ñu ay mool lañ de dama bàyyi ndeysaan mi ngi mi ngi noonu mi ngi noonu dégg euh, ñaari mbër yi dégg ngeen xas-xas loo bi am na solo lii dafa am solo ci làmb parce que tamit. Ah, vraiment promoteur bu njëlee xaalis bu bëree du ma su énervé su ma énervé nii dama lay dumale. xam nga yow sa kanam bi laa rëy. yow yow wallaay taalaay su ma énervé dama lay dumale. xale laa de. yow doo gis waaw léegi moo bëgg nag bu say. léegi taxaw leen ñu woote nag. bul daw daal bul daw. damay daw de. bu ñëw si géej ba nga naan eh, eh, eh, bu daw de. ma gis ma bëri nii di wiir wiir. yow soo defalee yow sa bopp yow ni ngay bëri yàlla mbaaxam dama lay duma dama lay daan ni ngay bëri boo si changé wul virgule amateur yi du ñu jéppi. maanaam boo mu taxaw da non ni muy bëree moom. bu ah. ñëwee. waaw bu ñëwee ñu daje. làmb ji jéem na. waaw looy wax ci loolu. kii dama koy dóor mu daanu wax ji jéem na du ma ma ne maa ngi bokk de eh, dama lay dóor nga daanu laa la wax. est-ce que est-ce que est-ce que bàyyi nga ma lay na ma sa mafia. du ma dama lay dugal nga daanu. comme que ma nga wax mbokki mbokki Sénégal mi ngi noonu face à bi jaar na yoon comme ni ñu koy waxee. ah mu mel ni tey nag dañuy dikk nag kii sponsor bi nga xamante ni tey jii moo solal ñaari mbër yi fi ñu ciy njëkkee mooy dañuy gërëm directeur général bi mooy As Ndaw borom Ndoukoumane ku ne xam na ni euh, boisson bi di original boisson la boo xamante ni mi ngi bëgg a lëmbe réew mi boisson la boo xam defe naa nag ñiy waaj ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel waxoon naa ko dama koy waxaat mooy boisson bi nga xamante ni moo xew ci jamono ñiy ciital moom la ñuy jënd ñi takk ay ñaareel moom la ñuy jënd ñi nga xamante ni dañuy takk waaj a takk ñetteel moom la ñuy jënd ñi jublu ci korite gi ñëpp fi mu toll benn boisson la ñuy naan muy original original boobu nag moo ne ne gis na defe naan tey sax xaw ma li muy weeru koor a mais kon mboolem ñu fi taxaw ni ko borom daan defee si da koy jël teg kenn ku ci ne daal naan ba bin fiy jógee waaye xam naa ne bala ñoo ñibbi kenn ku ci ne dina la jox nga yóbbaale kër ga ndax ku ci ndogu ci ñaari mbëri boisson boobu ngay naan kon pap waxi boisson bi lan ah, ko ay jigéen ñi bëggul wujjit moom la ñuy naan kon dina jar pap la boisson dinoo ma see sponsor yëpp tey tey sponsor yi moom vraiment ah, amuñu seen fay Asou Ndaw borom Dukumaan. Asou Ndaw borom Dukumaan mooy original bi ak soo ko si mu ma soloon sànq. yow ban boisson ngay naan vraiment non non dama koy naan. bii nii Sidi joxoon na ma si lu bari. boo koy naan lan ngay bu ñu jógee entraînement bu ñu xam na ñun dañuy manger beaucoup. Hmm. moom la ñuy naan ba pare mën a digérer normal doog a doog a lekk lekk bu baax. voilà tamit di nuyu képp keesuwaay yu fi nekk di nuyu bépp supporteru Pambay. Hmm. di nuyu waa Ersan bu baax a baax waa jàmm gën. waa Sampaate waa Cité Lamine waa Cité Senghor waa nga Serigne Fallou waa Murit ga xam nga waa Seras su ma limee kàcce yëpp rek ñëpp rek maa ni lim. parce que tey kees su may génn xam nga kees gépp ay génn tey ku ku ku nekk gis na koroog lu ma yóbbu Dakar. vraiment waaw Thiès jëpp génn. mën nañu xaar lu ko triplé. non Thiès fii fii comme bii bi sama kër maam la. wala xamoo leen ko. couche bi fa ma kër maam la moom laa waxoon ñëpp ñu fa ñëw te ku fi mës a ñëw ku nekk rek daan nan la. Youssou. waaw li ngay wax rek di nuyu sponsor bi xam nga original. Mm-hmm. xam nga di nuyu itam presse bi fi teew yëpp. Mm-hmm. wane ne wax dëgg yàlla presse bi seen fay. di nuyu itam waa Tëngéej di leen am nañ combat ak Pambay. Mm-hmm. ñu wax comme tënge gépp ñu ñëw jàppale ñu. ma daan booy bi jëla bu gaaw. garaaw mënoo maa daan ma daan nga jël bu gaaw. dem sama yoon. mais boisson yow. sëriñ ñi ngay dem nag. del del oytu nag. boisson bi egg waaw boisson bi mu ngi tënkee. kii ñëpp ngay naar gañ. ku gañ. xanaa gañ xanaa gañ li ñuy wax gañ persil di gañ korite gi gañ mu jox mu jox nuy kees rek. <laughs> nu commencé doxal. Ah. bu ko defee korite gi neex. léegi nag fu ngeen entraîné pare di naan. mu ngi noonu jox jox soxna si naan ku ngeen gis mu soxla ngeen jox xale yi naan jox lébu yëpp naan. kon daal original daal moo xew. waaw moo xew ci bois. nag nga moytu yenn maara yi dem nag. <laughs> man déglu nag fu ngay dem yëpp. yàlla yi maa ko moom de. non man du ma dem maara. jërëjëf euh, mbokki internet yi ñu doon seetaan mi ngi noonu. lii fii la xëyee woon ci euh, fi nga xam mooy CDR lit bu Thiès. ñuy rappelé waat rek date bi nga xamante ne ci lañ koy def muy tombe ak dimanche war a tombe ak le 26 mais fan lay amee fii nga xam ne mooy hippodrome alaaji Njaw ma ko du Jóob dafa naan di euh, place boo nga xamante ni Thiès gépp xam na ko muy diggante euh, Pape Mbaye bu Hersent di borom dëkk bi ak Youssou Ndour bu lebu gi moom itam di bërëm Tëngéej kon defe naa ne ku ci ne ab dëkk ngay boot pour ñëw ñu war a daje ci fii nga xamante ni mooy hippodrome alaaji Njaw ma ko du Jóob ñuy jox rendez-vous ñëpp nag le 26 date la boo nga xamante ni comme ni ma ko waxee woon Sidi Diakhaté ne la ak ndéwénal lay joxe ndéwénal goo xamante ni nag du tardé te def date ku fa ñëw di nga kontaan kon Youssou dernier kàddu pergala ma ma dama fàtte nuyu ñaamba yi quoi xam nga hmm. ñaamba yi xam nga ay ndongo pam ndongo ñaa ñu ngi koy woo si combat bi bu baax mu jàppale ñu si tike yi hmm. ñaambay borom solu étude Mm-hmm. xam nga. loolu dañ fay dem seeti mooy mooy président Asel. kooku mm-hmm. mooy Ñaambay. Baalaye aussi Baalaye Fall Adama Fall Adama Fall waaw waa Tëngéej yooyu. Mm-hmm. xam nga di woo waa Tëngéej yëpp suma staff ndax combat bi ñi ko bëggoon bari na xam ne yeneen combat ñoo ñu proposé mais staff yëpp dañoo bañoon. maanaam ñëw mais nag xam nga mais kàddu gi ñaar ko benn copain boo xam ne mooy loolu quoi. moom suma lépp la moom daanaka suma mbir lépp lu mu wax lii rek lii la xam nga. moom moo na aca kon aca kii moom mënul waaw ba xiir gi du ko daal. ah Pape nee na xiir gi ah, tamit ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy woowaat si combat bu baax a baax suñu amee combat da siy jàpp Ablaye Diop tamit ñoo ngi koy Ablaye Dieye tamit ñoo ngi koy woo si combat bi soxnaam soxnaam sama mag la aram mhm. tey combat bi mu jógee damaa may xaalis bari ñoo ngi koy waxaat mu ñëwaat jàppaat si làmb ji parce que tey kii damaa bëgg su ñëwee te noonu lay demee incha allahu mm, rabi parce que maire moo ngi fi xam nga man ku nekk xam ne maa duy turbine te kii bu ñëwee moom waa waa waa feene tëngéej waa tëngéej moom dañuy taxaw wala ñu wala duñ dugg si stade bi. kees dama fay am ay mbokk de. waaw yow kees dama fay am ay mbokk man ku man ma fa dëkk kees daa la wax. jërëjëf di ngeen kii di ngeen kii boo jaxaaw boo jaxaaw maa ngi koy nuyu di ko ñaanal combat bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam. amiin waay boo jaxaaw yàlla na ko yàlla may ndam ndax bëri nañ bëri nañ mais dara ñaawul quoi. jërëjëf kon jaxaaw yàlla na ko yàlla may ndam. jërëjëf yàlla na ko euh, yàlla may ndam. mi ngi noonu doomu daangu tam yàlla ko yàlla may ndam ama ne yàlla na ko yàlla may ndam. waaw waaw di ñaanal booy jaxaaw ak mbëru kees yëpp ku si am combat suñu borom may la ndam. parce que ñun ndamu kees moom chaque jour nu ma koy waxee sunu ndam la. Mhm. parce que tey ñun lu ñu bëgg lépp mooy service kees si làmb. Mhm. te man moom daa la part moo tax kii daa am problème yu rëy kii xamul sax kii sax xamul sax lu ma sàngoo. mbër sa fukk maa leen man. jërëjëf defe naa ne loolu moom. waxi waxi olof la ah, ñaari mbër ñaari mbër yi te tekkonte nañu mais dégg ngeen ko mais am na solo. mais nañu ci profité di nuyu nag le grand manager muy euh, muy Ndoye di manager ci ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour. Pape. dafa bi ak ñu defaree. madaar def mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ak amateurs yi làmb yi di leen jox seen wàccuwaay tey ñu ngi CNG bu Thiès kan moo fi woote suñu papa Sidi Diakhaté production. fiseleeti combat bu nga xamante ne nii nee naa la du ci gan yàgg na fisele bis bu mag. mais bés bi daf ci raw safe balaa ñuy sori nag foog ñu nuyu suñ papa Amène Ndiaye muy manager ci Pambay mais Ndoye également di manager ci Youssou Ndour bu Lebu gi mais ñaari champion yi nekk ñaari sampion yi nga xamante ne nii naqari wu ñoo présenté Pambay dafa fekk fu amul woon mbër amul woon dara R100 kenn mënu su kaa tudd tudd mbër daan nga dégg ndufuk daan nga dégg ngumsaan daan nga dégg feneen mais histoire làmb àdduna di tukki bu ñu waxee r wax mbër rek garage au Pambay kon kooku mbër mu neex a présenté la am leneen lu ci dolleeku mbër yi mu recevoir Thiès yëpp la daan mosu fee recevoir mbër mbër ma daan ko muy combat bu am enjeu ci kawam encore booy jaxaw dafa départ am deux défaites tegale ay victoire bi mu tëwee Thiès Pambay moo ko njëkk a daan mais bi ko Pambay bala 25 novembre bu daaw mbër dan ko Youssou Ndour bu lebu gii moo ko freiné si nak nag amateur u Thiès dama leen di satisfaire comme li waa takaru di tëgg laa leen di indil Thiès pour ñu mandi mu jël ñaari champion mais également bu ñu ñëwee ci Pambay R100 ku ko xam ci équipe bu nawetaan bi ak quartier bi ba ci maître Ousmane Diagne da ngay xam ni quartier bu gëm seen dew mi gox lan muy combat bu nga xam ne dina naqaree nat Youssou Ndour bu lébu gi dama ciy ñëw balaa mooy ñëw ci Youssou Ndour bu lébu gi sax Pambay Pambay bu R100 la doon wuyoo bi muy ñëw ci làmb dem bay wuyoo Pambay bu Thiès supporter am yi ni ma bu ko waxati Pambay bu Thiès del wax la Lion de Thiès muy ndaanaan boo xam ne boo ko nattee li mu bëre ci ay combat toll na ci 21 combat combat yi mu bëre yëpp da kaa génn ndakaaru mbuur feneen feneen fekk na pakala bu mbaling mbuur daan ko journée mania production bëre si na Thiès fii ak Modou Anta Gueye fekk na wës jàmbaar ndakaaru daan ko génn fekki waat fa caatu daaw dafaal ainsi de suite ainsi de suite muy combat bu neex a ba mais mu ci koñ ne nii Alimar di meru koñam di xaritam li dal Pambay ci maire Ousmane Diagne daf koo dal ci Alimar ku xam seen diggante ak digganteem ak waa ASEL koñam aussi am équipe nawetaan bu mag bu toll ni R100 xam naa ASEL ak r bu ñu dajee du ñu xaj ci hippodrome El Hadj Ndiaye ma ko di mais waa ASEL dama gis ñuy def taxawaay bu am am solo ci sa ay bis car masala mu nekk combat bu am enjeu mu ngi jëm nag dimanche le 26 mai fii ci hippodrome El njaw ma ko di jox mais du ñu sori xas-xasloo bi sànq ba léegi mi ngi am dañuy ñëw ak rek mu nuyoo Youssou nuyoo ñu ñëw ak moom ñoom ci quelque points Pape nuyu nañ la. waaw ñoo lay fay bu baax a baax a baax di rafetlu sa taxawaay si kes vraiment ak journaliste yëpp di nuyu waa kees yëpp di nuyu maître Ousmane Diagne bu baax a baax baax la maire nga xam ni meilleur maire kooku moom ku ko xam maam man di nuyu tamit euh, euh, taaliba sëñ Ba Abel kan di ko nuyu baax moom tamit bu mu amee combat da see ñëw jàpp si bu baax waa garage kees du nuyu waa Mosante ak képp waa diaspora bi ñëpp ñuy jàpp si làmb yi maa ngi nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm Ablaye ak Jawa ji ak Aram xam nga ak transitaire yu may jàppale ku si mel ni Ndaya xam na ñoo ngi koy sant bu baax ku si mel ni Aram xam ku si mel ni waa colonel Adama Diop tamit xam nga ñoo leen sant bu baax ñoom tamit su ma amee combat ñoom ñëpp ñooy ñëw jàpp si làmb yi vraiment. maa lay fay ginnaaw ban sant yàlla julli si yante bi sant sunu waajur sant sunu ménagère ndoy xam nga di ñaanal sama papa fa mu tëdd gënal ko fa mu jóge di nuyu suma adversaire Pape Mbaye di nuyu waa kees gi yëpp xam nga di nuyu amateurs yi xam nga di nuy suma supporters yi di nuyu waa Tëngéej di leen wax ne am naa combat maa Pape Mbaye le 26 fii si kees. ñëw daanu xam nga di woo waa Tëngéej yëpp ñu ñëw génne jàpp si di woo suma xarit Issa mbay kooku aw ma fayam kooku kenn la si suma xarit Issa Mbaye maa ngi koy woo si combat bi ak képp kuy jàppale Youssou Ndour ñu ngi woo itam le maire de la ville muy Omar Cisse ñu ngi koy woo Omar Cisse xam nga wuyu ñu nga ñëw jàpp si xam na ñun say doom lañ say rakk lañ waaw le maire Aline Mar kooku amuñu fayam kooku yàgg na ñu jàppale suñuy bés bu ñu nekkee xale ba léegi moo jàppale kon kooku amuñu fayam kooku nee naa la c'est le maire maire c'est le maire maire ku am quatre mandats xam nga kooku élection présence rek ngay gis ne mën na ñàkk mais bu dee maire moom du xëccoo kenn yeen ñaar ñepp sé ñaar ñeen ñaar ñepp xaritu ay maire ngeen en tout cas mo da mom xam nga wax deug yalla suma lepp la amna solo Youssou Ndour nga ñew ci champion bu nga xamanteni mbeur mu musa recevoir de kam daan na la mbeur musu ko fe fek ci daan ko wa ñoñu am man bokul ñoñu am man bokul xeyna la ngay wax ci man du ko nangu la ngay wax yow du ko nangu mais buñ beure ba paré mom dina ma nangul xam nga Pam Mbaye est ce que laata nga. kii xam naa ko bu baax seetaan ko bu mbapat seetaan naa ko fep champion la ku meuna beure la mais day day am beur day day am beur day day ku meun beus xam nga man dama meun beus bàyyi nga xel ni pap mu se beure combat bu yomb ci carrière mo xam ani ah, muy beure man sama bop la li lijjanti man dama meuna a bëri lu yomb. waa xam ya ci si noy tamit. wa yow ki mota mer. ya ci gën noy yow yow ñu mu bëree yaa si gën a té da nga bok ci yoon bi lay té dañ lay motalé si yoon bi momo dam momo dam ma ngi koy nuyu bu baax baax suma amé combat da ci japp bu baax baax may yu bari cham miskite tamit ma ngi koy nuyu bu baax baax baax ak bas combe ño bok koñ mom tamit mu nekk ci abdoulaye jie ño ngi koy nuyu bu baax di ko di gërëm tamit omar mo ngi ci diaspora bi ak salu cuus mo xamni dalu mo sol bu baax momako jox saaliw xama serigne tamit non man maa daal man bataan daal laa yore. man bataan damaa ñëw fii di jël si xaalis damaa ñëw fii di jël si xaalis mbër lu ma la waxoon rek laa lay wax. képp ku fi takk ngeem Sénégal maa la dàq bëre te yow bu boobaa bu boobaa di ma ko leeral man lu ma xoola yow xamoo ma lii laa lay wax nee naa la xamoo ma ñii ñii xam nan ma xam nan samay qualité rëdd bi mu si ñu ñëw ci ah, enjeu combat bi waaw ki nga xamante ne moom mooy Youssou Ndour bu lebu gi ndaanaan bu Youssou Ndour man damaa jël ay ba sonn amaati xolo ñii ñoo ngi nii damaa jël ba sonn waaw bu bu ñu wëbee carte gi yow foo jël fa jël laajal <laughs> waaw foo jël non yow man nga man boo ko maa yow man xala laa di liggéey ba agsi si yow man dama ni la man xale laa di liggéey ba ak si yow xam nga xam nga xam nga la yow benn jooy nga mu jeex benn jooy nga si man pap si yow man bari wax jaruma jaay daje naa mbër mu nekk jël ay lamb jaxaw si yow fu may doon dugg du fu may dugg du mbapat yow mbapat dóor da nga mos sa bëre li nga bëre dama ne mën nañ ko xaar sa diggante ak bay kii day waay kii dañuy bëre ki ma moom kii du ma bëre ak moom yow neexaluma la ñaanuma la saraxoo ma la man du ma yow dama lay duma nga daal Pap li nga bëre ak Boy Jabaas mën nañ ko ci course bi mën nañ ko xaar sa diggante non lu ko raw mënoo maa duma xale la ah, yow jaa ñuy dem ñuy dem xoola ñuy dem incha allahu rabi si kàttanu yàlla mbaaxam lépp di gën di yokk macha allah am na solo parce tey dañoo bëgg a indil kees yoo xam ne tey dañoo bëgg a indil yoo xam ne tey benn mbër mosu kaa indil kees ñun loolooy sunu gërëm te suñu borom yàlla dogal na am nañ qualité yëpp lu ñuy wax mooy oh, kees gën koy jàpp waaw bu dee théâtre moom nañ ko bàyyi yéen mais bu dee làmba doo gis da ngaa bëgg a wax kees amul mbër non du ma ne si kees amul mbër mais théâtre ah. ñoo ñoo ñuy bégal si koor gi ah loolu paa ba koy lijjanti <laughs> loolu paa loolu moom paa ba koy dama ne la Youssou Ndour yow yow ñun ñu xam làmb Dakar làmb kees wallaahi suñ doon jël ñu ñuy jënd ah yow yow suñ taxee mën la ñuy jënd bàyyi la waa yow gis nga kees te kees fii kajoor la fii gor ak jàmbaar dafay yàgg fii jom ak fulla dafay yàgg Elhas Ba yow da ngay théâtre yow xanaa da ngaa bëgg a jouer théâtre waaw Elhas a laa la wax Diaz am na am na solo ñu ñëw ci sponsor bi maire Amadar lan ngeen ci wax waaw di gërëm Modou Fall bu baax moom tamit moo ngi doon toog di ruwee combat bi ba nooy neex bi taxaw mais sponsor bi ñëw ci pap maire Amadar maire Amadar moom waa Amadar tamit di nuyu bu baax ak Noura xam nga daneen wax tamit ñu ñëw jàppale ma xam nga te man doomu kees te xam na am na lu bari loo xam ne tey kees yaakaar nañu si danoo bëggaat tamit ñu ñëw teg ñu loxo gën a teg loxo tamit Siteu Diakhaté di nuyu tamit champion bi xam nga ñun dañuy neexal laamu ji rek mais xam nga moom dama koy nax ba daan ko incha allahu rabi. macha allah mi ngi noonu presse en ligne bi fi nekk yëpp nuyu naa leen bu baax a baax a baax. yu ñëwal ci ah, sponsor Madaar bi maa ngi nuyu waa Madaar Madaar bu ma juumul Tëngéej seen usine bi am na fa de. Ah, macha waaw kon Maradam ñu ngi dugal seen loxo si làmb ñu ngi ñu ngi dugal la seen loxo si làmb ñu ngi woo tam sponsor yëpp ñu ñëw jàppale promoteur yi ku mel ni ñoom Père Sidi bis bi xam nga sponsor yëpp ñëw jàppale ka hélas borom xombal sama waay sama lépp xam nga maa ngi lay wax ne am naa combat maa Pambay xam nga la le 26 ñëw daanu ñaan yàlla yàlla may ma ndam xam nga di woo mbëri tëngeej yëpp xam nga di leen ñaanal bu baax ñi am combat doomu daangu day dem Dakar ma dem Thiès mu toj fële ma toj fii ñu daje tëngeej feetu. macha allah am na solo. waa Dia du ma si waxaat rek di wax publicu kees bi. Mhm. tey suñu demee dakaar ku nekk gis na lu ñuy mobiliser nekk si kaw stade bi mais suñu xoolee soo ñëwee kees gars yi dañuy wàcc noo bëgg incha allahu rabi lu ñuy yóbbu Dakar suñ ko duggee suñ ko dugalee si kaw stade bi rek ah si suuf sax da am ñu si nekk ñooy waxaat supporters yi képp ku ñëw. yéeg si kaw tribune bi ñu feesal stade bi dell dell dell dell si kàttanu yàlla ak mbaaxam suñu borom may ñu ndam lu seddu ko yi. côté mobilisation yi su loolu ban message nga ci moom ngi woo waa kaw ma lu dul Jokkul kaw xaw lu dul yëpp mais dañoo woo waa Jokkul yëpp ñu ñëw jàppale ma jàppale seen doom di woo lébu yëpp di woo Mbaye Ndiaye Ndambe xam nga Mbaye Ndiaye Ndambe kooku ñu ngi koy woo moom mooy le président regarde du Sénégal Mbaye Ndiaye Amdi xam nga Mbaye Ndiaye Amdi xam nga Iba Mar xam nga képp koo xam ne rek autorité nga nekk nga tënkee ñu ngi lay woo si bés bi te bés bi damaa ñor pap 2011 laa fi ñëwoon. 2011 nga a bëre. 2011 laa fi gëj a bëre mu ñëwaat fi tey 2024 te lépp a changé Sénégal actuellement. am na solo te changement boobu du fi bàyyi. am na solo mbokk yi mi ngi noonu rendez-vous bi la 26. yow mooy mag dem ba ñëw fii Modou Dóoram ko yor du mag. waaw yow mbir mi te rek defe naa ni defe naa ni képp ku ko seetaan rek di nga am bekk ci bis bi nga xam ni moom la si di jaxate taxawal waaye nag du ñu denc ci di ko wax toujours dafa am ay partenaires yoo xamante ni tey jii bu si di jaxate manee li mu man yàlla ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale la gis ngeen tey xale yi li ñu sol muy Madar ah sponsor la boo xam ne nag yàgg na ak Sidi yàgg ko jàppale mu yàgg ànd ak moom muy kóllëre goo xam ne seen diggante yàgg na kon tey suñu ñëwee ba fii dinañ waxtaan ak ñaari mbër yi ñu wax ñi lan lañ xam ci produit bi nga xamante ne mooy madaar ndax defe naa ni kër yi bu setee madaar la tey jii nit ñi bu ñu sangoo ba set madaar la tey jii bu ñu xëeñoo lu neex mataar la kon tey Youssou defe naa ni ci sponsor bi nga xam ne moom nga sol yan kàddu nga mën a yëkkati rek teg ko ci kawam waaw waa madaar moom ñu ngi koy waar rek mu gën a jàppale Persidi jàppale waat làmb ndax mu jàppalee làmb jàppale per Persidi jeune Sénégal la jàppale hmm. madaar moom ñëpp xam ne moom efficace na wax dëgg yàlla moom loo si ma mu set te am na pat daan touriste ah. bu génne léegi est que ah. yaa ngi ciy patu waaw boobu gisaguma ko nag. mais suñ ko gisee rek dinañ. Noura la tudd Noura. am na am na bi tamit am na tur xam naa ni. dinañ fexe ba balaa ngeen di ñëwaat. Mm-hmm. ñu fexe ba nga gis ko ngeen koy patoo. Madaar daal moo fi ne ci produit bi di ko yóbbu. Madaar moo fi ne Madaar moo fi waaw. loo wax ci produit bi nga xam ne tey jii mooy Madaar di partenaire Sidi Diakhaté di len gungé ci bis bi nga and ak mom tay lan nga ci wax wa di nuyu sponsor yëpp parce que tay suñ amé doole ba ñi fay ño tag loxo siidi mhm. vraiment di leen sant ba di leen gërëm di gërëm madaar bi ñu taxaw bi ñu sol xam nga tamit di gërëm képp kuy kess wa ba paré di doxal làmm Thiès vraiment ñoo ni sant ñom ñep di leen gërëm bu baax di nuyu amateur yi ak képp kuy supporter Pamba ñoo lay bëggee bu baax a baax baax a baax kon mbokk yi mi ngi nonu Euh, rendez-vous bi euh, le 26 mais lay doon feccee hippodrome Alaaji Njaw ma ko Diop bu Thiès ci diggante kan ak kan mooy Pape mbay bu R100 ak Youssou Ndour bu lébu gi kon ñu joxante rendez-vous foofu muy bis boo nga xamante ni bisu amateur la di bis boo nga xamante ni bisu làmb la di bis boo xam ne ku fa ñëw doo ko rëccu kon ñaari xale yi joxante leen loxo ñu tàggu. ñu ngi noonu.